xibaar yi faat yi dañ koy tàmbalee fële ca Rufisque ci quartier bu ñuy wax Ndënku foofu nag ab xale bu góor moo fa xaru mi ngi amoon ci fukki at ak euh, juróom benn ci ab euh, néeg la boo xam ne daal kenn dëkkatu fa woon la dem euh, pendre boppam bind na ab bataaxal nag ñu koy wax lettre daje mu ci naqarlu ak xeetu stigmatisation boo xam ne daal dafa ni waa famille am dañ ko ko doon teg moom nag depuis quatre mois paludisme chronique euh, moo ko daaneloon euh, ba muy euh, faral di délirer police nag ubbi na ci enquête fële ca Pakao Maka ci commune Koulibantang ak xale bu am ñeenti at moom moo fa faatu ak brique nag moo daanu ci kawam ginnaaw ngelaw bu métti boo xam ni moom moo fa amoon ñu teewlu ci reportage Bakary Konté benn xale boo xamante ne xale bu góor la bu am ñeenti at moo daal di faatu si saa bu birig daal di daanu ci bopp bi loolu mu ngi amee ci Pakao Maka ci commune bu Kolibantan bu ngelaw bu mag ñooy daal di ànd ak taw loolu nag bu mu amee nag ci la toiture kër gi daal di daanu mu am ay birig yi dugg ci biir bâtiment bi daal di daanu ci la fa xale bi daal di faatu magam bu jigéen daal di am ay gaañu gaañu ko tam mu ngi am 11 ans yaayam tam am ay blessures ñi daal na ma lool mais ñëpp ñu bàyyi ko ci loxo yàlla yàlla li mu def kenn mënu ki dara soo mu waxee waaw mooy am kenn du wax déet léegi lool ñàkk naa sama doom ku ma bëgg ki sama xol am na quatre ans mu ngi ci cinquième année la léegi sama yaay xale bi foofu la nekk di nelaw ak magam nag mais xam naa ne yàlla ki moom la soxla birki moo daanoo si kaw ngelaw dafa ñëw rek laal affaire sapeur pompier yi amoon ay jafe-jafe pour dugg ci dëkk boobule ICP gendarmerie ñoom ñëpp nekkoon ci ay tolof tolof ndax réseau téléphonique bi ni mu baaxul yoon yi dara baaxul barrage Diop Kounda Maka nekk ci jafe-jafe yi tar ndaxte fu mu nekk nii sax dafa bëgg a daanu. Euh, sapeur ñëw nañu commandant brigade balaa mu ëgg fii fekk na yoon bi baaxul moom oto mënul mënul jàll. après man sama oto moo demoon après mu jël benn moto sama oto moo ko andi ba fii. Euh, dañu jaale famille boobu ba léegi ñu ngi xaar bitumage nag parce que franchement euh, depuis décembre 2019 études yi pare nañu ki dëgg naa validé nañu études yi léegi léegi lan lañ xaar bitumage euh, bitumage de la rive gauche de Pakao final euh, franchement loolu mooy suñu soxla. kër yi bëri ñoo daanu picc commune bu Koulibantang ci département bu Goudomp lu jege si 500 sinistrés li ñu jot a enregistré ci région bu Sédhiou si bés yi ñeent xale ñoo faatu bu euh, taw bi commencé def ay dégâts fii ci région bi mu am tam ay blessés ba pare nag gis nañu taw yi ñu ngi gën a ñëw di def ay dégâts yu mag fii ci région bu Sédhiou. président Macky Sall lu ñu koy xaarandi tey jii ci jeudi ji fële ca Kër Massar euh, ginnaaw mbënd bi nga xamee ni euh, def na fa dégâts yu bare bare njiitu réew mi démb ci conseil des ministres euh, mooy laaj ñu wëyal mise en œuvre plan décennal boobu nga xamee ni dañu ko yëkkati woon ngir rek xeex lépp lu jublu ci lépp lu jëm ci wàllu inondation fii ci Sénégal. 2005 na comme na mu fa demee woon nguur gi waat ay tant ngir recaser euh, sinistré inondation yi ci banlieue yi fële ca Rufisque euh, site Jaxaay euh, commencé na di accueillir occupant yëf nekk autorités yi nag ña ngay dalal xel yi naan yëf ya daal jaar na ci yoon te dinañu respecter gestes barrières yi nga xam ne dina tax ñu mucc ci coronavirus ñu teewlu ci reportage Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb unité 14 laa dëkk kii Dame Seye nekk mais depuis nawet bi mu ndox bi jël kër gi yëpp quoi oui fees mu nekk ki njëkk ki ñu dalal nag ci ñu loru ci mbënn mi fii ci box bu jaxaay barab bi fi la ñu war a dalal njaboot yi nga xam ne mii ndox mi dafa nangu seeni kër ca parcelle Parcelles Assainies Kër Massar ca jaxaay waaye tamit diwaan yu ko wër ci kàddu yi ñu yore boobule projet matukaay yëpp nag jël nañ ko ngir dalal njaboot yi nga xam ne ni tey amuñu woon fu ñu jëm boo xoolee soxna siy toog xam nga ne li mu bëgg mooy ñu jàppale ko kon man li ñu ma fi tege en tant que collectivité locale maire ànd ak sama bureau municipal li ma def mooy jàppale askan wi loolu ñu ma fi tege bu àndul benn gistal nag ndax président daf ñoo yar ci lépp lu ñuy def nañ moytu ngistal kon maa ngi woo collectivité locale yi ak bépp bonne volonté ak kuy ministre kuy directeur société nit ñi nañuy def ngir yàlla jimbali Sénégal yi nga xam ne Sénégal yi comme ñoom ñu bañ ko politiser loolu laay woo ñëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi suñu bopp la ñuy dimbal ngir moytu nag wàllante jàngoro jii di coronavirus matukaay yëpp dinañ ko jël ci kàddu yi nga xam ne nii moom moo jiite bokk ma melu jaxaay bi njëkk mooy ñu gën a gëm yàlla bokk ndax fi mu toll li ñuy dimbal rek mooy ñu bokk unité buñ ko defee nekk dina yomb dina neex bi ci des mooy ñu respecté tamit feebar bi nga xam ne mu ngi ci dëkk bi di raxasu respecter mesure d'hygiène yi nga xam ne ministre bi digle na ko président digle na ko ndax loolu moo ñu ci génne bu ñuy daw ndox mi ba bañ a sóoraale feeb ne ci dëkk bi mën nañu am beneen problème en tout cas dispositif yi nga xam ne commune bi jël na ko muy masque muy gel muy lépp lu fa am incha allahu rabbi dañ ko fi teg ba duñu am benn problème li may ñaan bokk ndey bokk bàyyi. ci li ñu autorité administrative ñu fekk ci jaxaay dénk am na yeneen site yoo xam ni identifié nañ ko rek ngir nag dalal fa njaboot yooyu nga xam ne ni tey jii ñu ngi ci njàqare parti démocratique sénégalais ñoom nag beddi nañu assemblée nationale euh, ci mbirub saytu euh, koppar boobu nga xam ni dañu ko euh, jagleeloon plan décennal ñoom daal nee nañu lii di commission d'enquête parlementaire doyu leen ci ngir leeral lu ni mel. Lamine Diack daan nañ ko ñeenti atu kaso ak ñaar ci sursis ak koppoor bu takko takku avocat mi nag nee ñu daal atte boobu daal jarut ci yoon dinañu interjeté appel dañuy teew lu kenn ci avocat mi di maître Simon Ndiaye ci micro Sidou Silla. ñu koy méttiitu parce que def nekk verdict boo xam ne euh, juge yi indiwuñ fi benn firnde boo xam ne wane ne Lamine Diack li ko doon jiiñ moo ko def. dama jàpp ne dañu décidé woon avant que Lamine Diack yoon dafay daan ci kawam kuy yoon di daan ci kaw nag moom day fekk ñu sukkandiku ci loo xam ne ay firnde yu leer loolu mooy la charte de la preuve fii nag moom procureur moo amoon charte de la preuve maanaam moom moo doon tuumaal Lamine Diack moom moo war wone ne li mu def baaxul moo war a ne liñ koy jiin moom moo ko def teg fii ay preuve yu leer loolu nag moom lañu ñu gisul woon ci procès léegi li ñu décidé ñun ñun waa nga xam ne ñoo défendre Lamine Diack mooy def appel maanaam wan juge yi ne li ñu wax ànduñ te yoon def ñu may ñu def appel bu dee décision bi ànduñ te yaakaar nañ ne bu ñu demee appel foofu moom yëf yi ñu gën leer bitim réew euh, ñu doore ko fële ca Guinée Modou Fall euh, ak euh, opposant yu nga xamee ni dañoo fa yéene booloo rek ngir baare yoon bi ki di Alpha Condé. ñu ki kon demb lañ jël boobu la ndogal ku jéggi ndaje ngir rek xeex li nga xam te ni moom la Alpha Condé bëgg foofee ca Guinée mu di am troisième mandat ñoom nag ñu ne loolee du am. dañu def seen kéem kattan rek ba nga xamante ni Alpha Condé du mën a jàll am li nga xamante ni moom la bëgg mu di nemef teefam ki nga xamante ni nag moo di président Uriba di euh, président bu ur URDG euh, wala UDRG sax dégg nañ ko sànq ci nasaraan nee na présidence à vie moom loolu jeex na tàkk ci Guinée Alpha Condé ci boppam moom la doon xeex laata yegg ci nguur gi tey nag mu yegg ci nguur gi bëgg salfaañe li ni te ñoom nag danañu def seen kéem kàttan rek ba loolee du am Euh, ca Mali nag foofe jàppale ni euh, kii di président bu Côte d'Ivoire bi di Alassane Dramane Ouattara moom yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci militaires yi nga xam te ni ñoo daaneeloon kii di Ibrahima Boubacar Keïta militaires yi nag lañ bëgg rek moo di toog ca bopp nguur ga fukki weer ak juróom-ñett di at juróom-benn weer daataa ñu koy jox nag li nga xam ni ñoo di civil yi moom Alassane Ouattara sàkku na ci militaires yi ne euh, nañu joxe nguur gi nu mu gën a gaawee laataa rek Mali di dugg ci euh, guuta euh, ba tey Alassane Dramane Ouattara moom candidat am ñëpp xam ñu indi na coow ca Côte d'Ivoire loolee tax ñooñu Laurent Gbagbo yi ñoom nag woote nañu. Euh, gannaaw ñaari fan yi nga xamante ne conseil constitutionnel dafa dàq ni euh, liste ci lu tollook euh, ñeent fukki candidat te Laurent Gbagbo bokk ci ñoom ne nañ daañu wàcc ci tali bi ñaawlu li ni mel ba noppi jàmmarloo ki nga xamante ni moo di conseil constitutionnel bi wane ni décision yi mu jël du dara lu dul forfaiture ca Libi jàppale ni jëwriñ ju njëkk jii di ministre Fayel Al zara moom nag nee na rek noppi na ngir jugee ci euh, bopp euh, nguur ga foofu lay moom nag euh, nee na rek ab walante boo xamante ni bëgg na ko amal ni ki njeextalu octobre bi ñu dëkkmal daal di jébbal nguur gi keneen koo xamante ni rek waxtaan wi jot na ko génnee ca Syrie jàppale ni ab rapport boo xamante ni ONU def na ko mooy wane ni ay violence yoo xamante ni amal nañ ko foofee ca Kurde commission indépendante internationale bu Nations Unies wane ni violence yu bëree bari daal amal nañ ko foofee dañ ci ànd ak nga xamante ni moo di Pape Fara Gningue yu commission indépendante internationale des nations unies ci Syrie ñoom nag joxe nañ ab rapport boo xam ne ci wàllu ak ak yelleef doomu aadama ca dëkk ba document boobu nga xam ne ni ki talaata bi lañ ko génne nag gis nañ ci ay ñaaw ñaawteef yu métti yoo xam ne def nañ ko foofu ca biir dëkk ba nga xam ne moo nekk Syrie conclusion yi nag nekk lu doy waar ci ab enquête boo xam ne def nañ ko fukki fan ak benn ci weeru janvier jàpp benn fan ci weeru sulet 2020 loolu nag gis nañ ne ñaawteef yeeg violence ni mu fa yokkoo ci wàllu nag ñàkk a respecté lii di àq ak yelleefu doomu aadama foofu ci république arabe syrienne bi enquêteurs syriens yi nag jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk civil yi ñoo ci ginna sonn ci boobule crise ñaawteef yi nu mel nag ay traitement yu doy waar la yoo xam ne kenn xalaatul ñu daal koy def ay nit loolu nag ñaari parti yëpp ku ci ne yaa dem def li nu mel jàpp nit nag tëj ko te tegoo ko fenn daal di ñëw nag ñoo xam ne réer kenn gisatu leen ñii ñu torturer leen ñii ñu daal leen rey daal leen tëj ba ñàkk seen bakkan ci kaso bi loolu nag boobu le document daal woon nag ay violation yu bëri bëri gouvernement bu Bachar al-Assad nag ñoo ci def li ci gën a bëri ak armée syrienne bi te nga xam ne nag waa Turquie ñoo leen di jàppale ak ñii di force démocratique syrienne naka noonu jihadit yu ayaat tax Tahrir al-Sham ak yeneen parti yi nga xam ne ñoo bokk ci conflit bi. ci bile xeex nag amul kenn koo xam ne loxoom seet na ci président bu commission bi di Paolo Pentero loolu la xamle bi muy présenté lii di rapport am. Pafara jërëjëf kon jàpp leen ni fële ci Royaume-Uni jëwriñ ju njëkk ji nga xam ni moo di premier ministre britannique bi Boris Johnson moom nee na am na yaakaar rek euh, ci gannaaw bu ñu génnee ci euh, Brexit bi euh, ñoom ak Union européenne seen diggante gën a ratax nga xam te ni du am benn jafe-jafe boo xam ni loolu am na ko ndaxte ñoom seen projet moo di fexe ba engagement yi nga xam ni jëlee nañ ko rek ñu wéyal ko jeexalee cyclisme Tour de France kii di Miguel Ange Lopez. Angel Lopez moom nag daal dinay euh, jël li nga xam ni moo di euh, dix-septième étape bu Tour de France euh, gannaaw rek kon li nga xam te ni romb na kii di kii di Primoz Roglic moom moo jël lii di ñaareelu ñaareel bi yoon mayo jaune ci ñaareelu tour bi ci classement général ba laata départ gi àllarba jàpp leen ni ki nga xam te ni moo yoroon titre bi di Egan Bernal moom dafa mujjoon rek daal di bàyyi bokkul ci course boobule Cheikh Tidiane Diaw ñu yemale fii xibaaru biti jërëjëf euh, Modou Fall Fati li moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane jërëjëf également à toi Mamadou Fall ci ñaareelu pàcc bi ngeen ñu jox muy xabaar yi moo du ñu dig la daje ëllëg incha allah pour la DER de la semaine. incha allah pour la DER de la semaine. très bonne journée à toi Modou Fall naka noonu sunu téléspectateurs yi bu fekkee yéen a ngi dab euh, dal leen jàmm ci info du matin ci télévision Futur Média ñu jégalu ci li ci tali bi suñu oustaz nag Mouhamed Samb faaw muy dugg léeg-léeg ndax. <laughs> Eh, day day day raar nga ne demul fan. Mouhamed Mouhamed Samb soo ñëwee nga wax Mamadou Fall fan nga nekkoon en tout cas ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ko remercier également Mamadou Fall 6h30 la ñu doon gunge ci info du matin léegi léegi ñu dugg ci jàngat bi ànd ci ak El Hadj Daouda Mine